beaucoup maître de cérémonie assalamu alaikum. gis Sénégal Dakar parce que askan wi taxaw nañ ni décret président Macky Sall signé na reconnaître dañ koy rejeter dem campagne électorale kon campagne électorale bi commencé Sénégal Nous bëgg féliciter tous les leaders de les candidats ont pris la décision de dañuy une ouverture simultanée ñoom ñëpp ñu ànd Saint-Lazare Nous avons li ci top. police euh, police gazé na leen nous arrêté depuis bi suñu fédération yi à l'intérieur du Sénégal fait une campagne électorale comme ni ko loi électorale mais Lolo, ñun wa jomay président dañ campagne électorale bi tàmbali depuis démb à minuit dina dem le 24 février à minuit Que ko xamni da ngay section fédération ak fo man di nek ci Sénégal dañ la sant nga dérouler sa campagne électorale selon le calendrier bi nga décret bi président Macky Sall signé démb taxaw taxawulul benn yoon processus électoral bi nga xam ni démarré na ñuy masawu nag sunu responsable yi nga xam ni tey arrêté nañ leen ci ab délégation jóge na fa léegi dem seeti Mimi Touré am na yeneen candidat yoo xam ne arrêté nañ leen ku ci nekk ñu lay mais ñu xam ne ñoom ñoo nekk ci ñoo parce qu'ils sont dans l'exercice de leurs des droits qui leur sont reconnus par la loi électorale et lolu bu mu dakk benn yoon campagne électorale di jeex parce que dañoo que ci période campagne électorale ah li ci des rek demander aux forces de l'ordre ñu xam ni ay sénégalais la ñu jàkkaar ci biir mbedd mi loolu dafa ñaaw te warul ci ay force de l'ordre ñuy toroxal ay kilifa ci bir mbedd mi warul ci ay force de l'ordre ñuy def un exercice un exercice excessif de la force publique suñu rak lañu suñu dom lañu suñu jarbat lañu xañ service commandé biñ nek nañ ci and ak respecter les lois qui commandent le respect, l'exercice le, de, du service d'ordre. Nous sommes tous salam.